ndeysaan xaraña gi noonu bala Moussa arbitre yaa ngay xool ñaari mbëri ndax niin na ñoom deet kooku niinul bala Moussa xool nañ ko arbitre nee na baax na nee na mu faxa suufam lii moo nekk huitième combat de la soirée diggante xarañ ak bala Moussa bala Moussa moo ngem moo ngembul moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan ka koy arbitre mooy Tidiane. ndeysaan ndeysaan. oh. wax nga dëgg de. xarañ. xarañ eh, bala Moussa. ndeysaan nee na leen lam bañ nee na leen ma taqat ak gajeeg ma mbëkk dara xamul ci lam nee leen man maay maître du terrain sifle moo leen boole sifle moo leen di tàqale <laughs> laaj na ñoom ñaar ñëpp yow boo ma waxee dama lay may micro bi. arbitre na seen diggante ñoom ñaar Bala Moussa seen ndeyjoor xarañ ngeen jàkkaar lool ñoo koy Bala Moussa moo ngeen moo ngeen boolu bulali xarañ moo ngeen moo ngeen boolu weex ndeysaan ñoom ñaar ñoo koy ñoom ñaar ñoo koy lewtoo Bala Moussa xarañ bala Moussa xarañ bala Moussa xarañ bala Moussa ah, xarañ bala Moussa jee bala Moussa o ngay door xarañ xarañ a ngay arrière bala Moussa engagé na ko bala Moussa am njaay joxal Jóob am njaay joxol Diop ñoo koy wure xarañ ñoo koy wure dóor ñoo wure am njaay joxol Diop ba jàppanten jàppante nañ xarañ ak Bala Moussa xarañ bu Grand Médine xarañ Moussa a ngay dóor Bala Moussa di leen wax ne leen Bala Moussa moo xarañ mo moo bàyyi ko Diourbel dëkk Diourbel lañ. doomu nee doomu Diourbel la. doomu Diourbel la. Bala Moussa xarañ. xarañ moo dëkk Medina Grand Medine. Grand Medine. waaw. ci kaw tirin Idi dem na ci kaw tirin. ndeysaan kooku génnoon. mooy naar sama doomu ndey. damaa génnoon. Idi daa génnoon. damaa génnoon damaa génnoon. waaye Idi boo paree nga ñëw géew. tey géew amul. Bala Moussa xarañ. Bala Moussa xarañ ñaari xale yi xeex nañu fi. Bala Moussa xarañ. Bala Moussa xareñ Bala Moussa xarañ. Bala Moussa ak xarañ. Bala Moussa eh, xarañ. ñaari xale yaa nga ca ba léegi. waaw Bala Moussa jàpp ràcc. xare ña ngay door uppercut ci suuf. loolu mooy rokos dafa mel ni Bala Moussa moo ko gën a diis. waaw Bala Moussa moo gën a diis xarañ. Bala eh, waay. Kumba Jaga muy wax. déggal ma Kumba Jaga muy wax. déggal ma Kumba Jaga waaye kenn du Kumba Jaga ak Yaa Faatu arbitre ba nee na leen bëre leen bu yàgg bokkul ci lamb CNG da koy tere bokkul ci taxi ndeysaan maa ngi nuyu Sitor Ndour au passage la grand arbitre bala Moussa xarañ bala Moussa xarañ arbitre atte na leen arbitre bi àtte na leen jàppante te bëre wala amatul ci làmb. Eh, na. Bala di tàqale ndax ndengeñ bu yàgg soo ko defee dañ leen di àtte. eh Bala Moussa eh, ñu ngay xeex ñu ngay xeex ñu mu daan. eh Bala Moussa heure toll na Xarañ. teg na ko pression ñoo ngay xeex am njaay joxal Diop hee bara Moussa xarañ bala Moussa xarañ xarañ a ngay dox ci kawam xarañ a ngay dox ci kawam waa xale yi xanaa dañoo nam xeex ee bala Moussa xarañ bala Moussa xarañ ee ay waay ku may may mayo Sénégal waaye fàtte naa mbin gay ki day jaay ay mayo nee na naa ñëw mu may ma mayo mu may ñu mu may ñu mu may ñu <laughs> mbin gay ki nee na ma ñëwal Sandaga ma jox la mayo bu la joxee dina ma jox jox xalil ndeysaan Basir Wassare maa ngi koy nuyu au passage non xalil mooy ñëw bas ñëwul tey xalil mooy ñëw <laughs> waaye xar <laughs> ndeysaan bu la joxee mayo daf may jox mayo jox xalil mayo wax day leer rek oh bala Moussa xarañ nuyu ma xalil bas wasaare laay nuyu nuyu ma xalil bala mu saa xarañ nuyu ma xalil bas laay nuyu bas maa lay nuyu xarañ bala mu saa bala Moussa eh, ka wax nga dëgg. bala Moussa lan la bokk ak Kanka Moussa. drapeau eh, neex na. da ngay laajte bala Moussa lan xam naa am na lu ñu bokk. boo demee ci biir soose ay bala est-ce que waajuru soose. bala Moussa ak xarañ. ñaar ñaar miitaan nañu. <laughs> ndeysaan. arbitre ngay waxaat ak ñoom nee na leen sifflé leen di boole sifflé leen di tàqale Afrique sifflé waat na ci diggante Bala Moussa ak Xarañ Bala Moussa ak Xarañ ndeysaan wala maa ngi laaj lu mu bokk a baax Kanka Moussa. kenn faale wu boo ko déggee ci xeetu soose la bokk. waaw moo bokk a Kanka Moussa. Kanka Moussa. Kanka Moussa la bokkal. hey Bala Moussa xarañ. waaye ma Sele mele. Cey Sele. hey doomu campement. doomu campement wax ba ma ngay yëngu. waaye kay la àndal. Moussa Faye la àndal. 66 kilos équipe nationale. Sane. Bala Moussa xarañ ay waay bëre nañu bëre ñoom duñu Balla Gaye duñu Bombardier bëre leen Bala Moussa xarañ Bala Moussa mu ngay attaqué xarañ daa bëgg jeexal combat bi moom Bala Moussa Bala Moussa xarañ naa leen combat bi Tidiane moo koy arbitré Bala Moussa xarañ ndeysaan président Babacar nga toog ca siège ba di superviser Bala Moussa ak xarañ Bala Moussa xarañ national suba ci heure bii ñëw dinañ sibile ba doyal. suba la Sénégal di sibile ba kontaan. suba la Sénégal di sibile ba kontaan heure bii dañuy sibile. suba lañu fas yéenee dóor 2-1 la ñuy dóor. suba Sénégal day jéem a dóor 2-1. Sénégal bu daanee kër Bombardier la nit ñi jëm. waa Sénégal bu gagné fan lañ jëm. ci dañuy daw rek. <laughs> non naar bi ngay xool ji naar bi. wala Moussa xarañ. door bu daanu. looy loo xeex am Diop joxal Ndiaye am Diop joxal Ndiaye. looy loo. ay waay mbàccum gerte gi mbàccum gerte. ay waay xoolal ma mele. Oh, moo ngi naan faj na njoole yey na bugaan waan kumba gaja salaan mbay nee na mu ngay naan ku bañ njool yaayam ko loolu lay way mu naan faj na njoole yey na bugaan waykat baa ngi koy wax Bala Moussa Bala Moussa ak xarañ na combat bi moo ñu fi guddeel. waral ma sële mi la ñoom ñaar. Bala Moussa. Bala Moussa ak Xarañ. ndeysaan. waaye lii waaye pël yi bari nañ fii nag. lii ba xarañ at Bala musa Bala Moussa xarañ. oh xoolee ma Touba. la yaa nday Fatou Adama Jali nee na ko yaa moom. Bala Moussa ak xarañ. Bala Moussa. Moussa Bala wala Bala Moussa. wala Pakanka Moussa. waaw Kanka Moussa ak Bala Moussa moom. Kanka Moussa la. ak xarañ. Balla yi Balla Moussa xarañ. ak xarañ. ñoo ngay xeex. xarañ taxaw. waaye ñaar ñi xanaa ñaar ñi xanaa dañoo am règlement de compte. ñaar ñi yaa quelque chose. dañoo am règlement de compte. a laaj nag. léegi nangu eh, oh. xarañ. ndeysaan nday tey ndeysaan tey làmb tey làmb fara bugu am na ak pasi ndeysaan Bala Moussa xarañ ndeysaan maa ngi nuyu Bodales. si kambay bu mag bi. ndeysaan ànd ci ak moom bu ordinateur. oh Ndiasse. ay Ndiasse bu Doudou Sané maa ngi leen di nuyu au passage. bala Moussa xarañ. la ma neex. la ma neex. jàmm neex na. yooyu fii sëñ Bamba ne na. ko gën. maa la ko wax. <laughs> oh cey jàmm. cinq minutes ya jeex na lii xeeñ kay la neex ndax foog na jëmbër mu faral ñu daan lii xeeñ xet la wala <laughs>